juróom ñett fukk ak juróom benn yeesu yéeg na ci asamaan ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. sunu mbég rëy na lool tey ci li nu mën a dellu ngir dégtal leen seen émission bi ñuy wax yoonu njub bu yàgg ba léegi doon nañu gëstu ci linjil bu sell bi di téere bi ëmb nettalib musalkat bi mën lépp di yéesu Kirist ni ñu ko gisee woon ba noppi yéesu mu ngi tekki yàllaay musal te Christ baatu grek la di almasi bi ci làkku hébreu tey tekki ki yàlla fal yéesu Christ kon mooy ki yàlla fal ngir musal doomi aadama ci nootaangeek bàkkaar waaye ni nu ko gise woon lu ëpp ci nit ñi ràññewuñu woon ku yéesu doon ci dëgg-dëgg am na ñu ko tegoon yonent waaye xamuñu ne yéesu mooy ruuwu yàlla ngi jóge asamaan feeñ ci kaw suuf si ci bindu nit ñeneen ña mel ni sëriñ sa ak kilifa yawut ya dañu ko añaane woon lool te ci mujj ga rey nañu ko ci wekk ko ci bant waaye loolu lépp yàlla dogaloon na ko te xam ko lu jiitu deewuk almasi bi ci bant ba dëppoo woon na tembe ak yéeneb yàlla ji mu yëgle woon bu yàgg jaarale ko ci ay yonentam te ci njàng mi weesu gisoon nanu ni yàlla dekkale woon yeesu ndeketeel yéesu dafay firndeel ne yàlla nangu na deret ji yéesu tuur ni njëg doy sëkk gi mën a jot doomi aadama ci dooley bàkkaar ak ragal dee ak mbugalu safara gannaaw ba yéesu dekkee nag gisoon nanu ni mu feeñoo woon ay taalibe di leen won ay légetam fa xarekat yi daajoon pont ya ci ay loxoom ak i tànkam te jàngoon nanu it ni yéesu lekke woon ak ñoom ngir firndeel ne ci dëgg-dëgg mu ngiy dund noonu téereb linjiil day nettali ni yeesu feeñoo woon ay taalibeem diirub ñeen fukki fan di diisoo ak ñoom ci lu jëm ci nguurug yàlla gi tey jii nag ci ndimbalul yàlla dinanu gis ni yéesu tàggoo ak ay taalibeem yéeg ci asamaan ci saar wi mujj ci linjilu màcc lanuy tàmbale sunu njàng tey mbind mi neena noonu fukki taalibe ak benn dem ca biir galile ca tund waleen yeesu digaloon bi ñu gisee yeesu ñu màggal ko waaye ñenn ñi am xel ñaar yeesu jegesi ne leen demleen ci àddina sépp yëgal xebaar bu baax bi mbindeef yépp ku gëm te ñu soob ko ci ndox dina mucc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 xabaar bu baax bi ci mbirum deewam ca bant ba ak ndekkiteem ca bàmmeel ba dinga mucc waaye ku gëmul des na ko daan ñi nu ko gise woon yeesu tuur na deretam ni sarax su mën a far sa boru bàkkaar ba faw waaye deret ji la yeesu tuuraloon du la jëriñ dara boo ko gëmul ci sa biir xol ndaxte mbind mi nee na yàlla dafa bëgg àddina ba joxe jenn doomam ji mu am képp ngir képp ku ko gëm am dund gu dul jeex te doo sànku mukk waaye ku ko gëmul daan nañu la ba noppi ndax te gëmuloo ci turu doom ji yàlla am képp noonu la soo gëmee xibaar bu baaxu yeesu kirist dinga mucc waaye boo ko gëmul dinga sànku ci say bàkkaar loolu mooy kàddug mucc gi yàlla wàcceel doom aadama yi looloo taxoon yeesu sant ay taalibeem ne dem leen ci àddina sépp yëgal xibaar bu baax yi mbindeef yépp sañ-sañ bépp jox nañu ma ci kaw ak ci suuf dem leen nag sàkk ay taalibe ci xeet yépp ndax dégg ngeen li yeesu waxoon ay taalibem mu ne leen sañ-sañ bépp jox nañu ma ci kaw ak ci suuf dem leen nag sàkk ay taalibe ci xeet yépp lu taxoon yeesu wax ne am na sañ-sañ bépp ci kaw ak ci suuf ci sunuy njàng ci tawretu musa gisoon nanu ni yàlla sàkke nit ku jëkk ka di aadama jàngoon nanu ni ko yàlla maye woon sañsañ ngir mu yilif lépp li yàlla sàkkoon yàlla dafa bëggoon aadama nguuru ak moom ba faw waaye aadama ñàkkoon na sañ-sañ boobu bés ba mu tebbee ndigalu yàlla ba lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon ga te ndegam aadama mooy sunu maam te ndegam musiba du yem ci bopp boroom nun ñépp it ay bàkkaarkat lanu ci nguuru bàkkaar lanu juddoo nun ñépp fu sore yàlla ak ndamam lu rëy waaye nu ngi sant yàlla ndaxte mbindi yonent yi dañuy wone ni yàlla rabate pexe ngir ubbil doomu aadama buntub dellusi ci yàlla bunt boobu mooy almasi bu sell bi jóge asamaan ngir tuur deretam ni sarax suy sellal nit ci seeni bàkkaar alamasi bi yéesu jaaroon na ci nattu ni aadama waaye deful bàkkaar ku mat te sell la woon ni yàlla mate te sell looloo taxoon yàlla rusu ko woowe doomam noonu bi yeesu joxe bakkanam ni sarax suy dindi bàkkaar yàlla dekkal na ko def ko boroom lépp dénk ko sañ-sañ bépp ci kawak ci suuf wante xëy na am na kuy laaj naan waaye su fekkee ne yeesu mooy boroom lépp lu tax nag sunu àddina si fees dell ba tey ak naqar ak bàkkaar mbind mu sell mi wax na lu waral loolu bi mu naan ni ñépp deewe ci seen bokk ci aadama noonu la ñépp di dundaate ci seen bokk ci kirist waaye ku nekk ak ayam kirist moo jëkk mel ni gub yi ñuy jëkk tànne ci ngóob mi ba noppi bu kirist dellusee ñi bokk ci moom jël seenug ay gannaaw ga mujjug jamono taxaw te kirist dina noot gépp kilifa ak bépp sañ-sañ ak doole ba noppi delloo nguur gi ki yàlla di baayam dina fomp bépp rangooñ ci seeni bët te dee dootul am wala naqar walla jooy wala metit te yëf yu jëkk ya wey nañu ci aaya yooyu ak yeneen aaya yu bare yu nekk ci kàddug yàlla mën nañu ci gis bu leer ne yàlla dénk na yeesu bépp sañ ngir mu noot lépp te àtte ñépp waaye fi nu tollu nootagul lépp te àtteegul waa àddina si wante benn bés yéesu dina dellusi ci àddina te bu dellusee dina noot lépp yeesalaat lépp waaye li nga war a xam léegi mooy koo mën a doon ak foo mën a nekk yàlla santaane na nga tub say bàkkaar ba wàññiku ci moom te nga gëm xebaar bu baax bi jëm ci deewu boroom bi yéesu kirist ak ndekkiteem yonent yépp seede nañu ne képp ku gëm xebaar bu baaxu kirist yéesu yàlla dina la baal say bàkkaar yépp ci turam yeesalaat sa xol ci doolay xel mu sell mi te may la jàmm ak yàlla ba faaw soo gëmee kirist moom dina ñëw ci yow samp nguuram ci sa biir xol wante ku sàggane musalkat bi yàlla yónni musalkat boobu dina mujj a nekk sa àttekat moom la mbind mi wax bi mu naan sunu boroom yeesu kirist dina joge asamaan feeñ fi keroog dina ànd ak malaaka yu am kàttan safar su yanj wër ko mu feeñ ngir mbugal ñi xamul yàlla te bañ a déggal xibaar bu baaxu sunu boroom yeesu seen pay mooy alku faw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 am bés nag bi yéesu doon lekk ak ay taalibeem mu sant leen ne bu leen sore yerusalem waaye ngeen xaar li baay bi dige woon te ma waxoon leen ko ndax te ndaxte ya daan na sóob nit ñi ci ndox waaye yéen dees na leen soob ci xel mu sell mi fii ak ay fan yu néew ndax dégg ngeen li yeesu wax jàngo nanu ba noppi ni mu digee woon ay taalibeem ne gannaaw bu deewe dekki te dellu asamaan dina leen yónnee dimbalikat di xelam mu sell mi ngir mu dëkk ci seeni xol juddulaat leen sellal leen dooleel leen te gindi leen ci lépp lu jëm ci yoonu dëgg te léegi dégg nanu ni mu sante ay taalibeem ñu xaar ñëwuk xel mu sell mi ci njàng mi di ñëw bu soobee yàlla dinanu gis ni xel mu sell mi wàcce woon ngir fees xoli taalibe yeesu yépp ni ko yeesu digee woon waaye nanu jëm kanam léegi ci mbind mi mu ne bi taalibe yeesu yi dajaloo ak moom nag ñu laaj ko boroom bi ndax ci jamono ji ngay yëkkatiwaat nguuru israel mu tontu leen ngeen xam jamono yi ak saa yi baay bi dogal ci sañ-sañam loolu mayuñu leen ko waaye bu xel mi sell mi ñëwee ci yéen dingeen jot kàttan te nekk samay seede ci dëkku yerusalem ci diwaan yude ak samari yépp ak ba fa àddina yem bi mu waxee loolu te ñu di ko xool yàlla yéegee na ko te aw niir jël ko làq ko seeni bët bi muy dem nag te ñu ne jàkk asamaan si ñaar ñu sol yëre yu weex daldi ne seef taxaw ci seen wet ñu ne leen yéen waa galile lu tax ngeen taxaw di xool asamaan si yeesu male ñu jële ci seen biir yéega ko asamaan dina dellusi ci ningeen ko gisee muy dem asamaan amin noonu la boroom bi yeesu yéege ca asamaan dellu ca këru yàlla baayam fa mu jóge woon ni demam ànde woon ak ndam te mboolem taalibeem nekkoon nañu foofa ngir seede ni mu yëkkati ko léegi xamoon nañu bu wóor ne yeesu mile ñu doon àndal diirub ñetti at yi weesu ci dëgg-dëgg moo di almasi bi yonent yépp doon wax li ko dale ci juddoom ba ci deewam ak ndekkiteem ak yéegam yéesum nasaret amaloon na lépp li yonent yi yëgle woon ci mbiram ba yéeg ci kaw ni ko yonent yàlla daawuda yëgle woon ci saboor noonu mbind mi ne gannaaw bi boroom bi yeesu waxee ak ay taalibeem mu yëkkatiku dem asamaan toog ci ndeyjooru yàlla te ni nu ko jànge sànq gannaaw ba mu yëkkati ko ñaari malaaka feeñu ay taalibeem ne leen lu tax ngeen taxaw di xool asamaan si yeesu male ñu jële ci seen biir yéega ko asamaan dina dellusi ci ni ngeen ko gise muy dem asamaan waaw mbokki déglukat yi benn bés yeesu kirist dina dellusi ci niir yi te bu bés boobaa ñépp dinañu teg seeni bët ci moom te ñépp dinañu xam ne mooy ki yàlla fal ni musalkat bi ak àttekatu àddina si moom la mbind mu sell mi wax bi mu naan ca njaal benn ga fekk na kirist yor melow yàlla waaye aak taxawaayam ci li mu méngoog yàlla waaye daa wàcce boppam ba tolloog nit ñi def boppam surga te bi mu yoree bindu nit daa suufeel boppam di dégg ndigal ba joxe boppam ñu daaj ko sax ci bant moo tax yàlla kaweel ko lool jox ko tur wi tiim yépp ngir turu yéesoo tax ñépp sukk ci asamaan ci kaw suuf ci biir suuf te ñépp bokk genn kàddu naan yeesu kirist mooy borom bi ci màggug yàlla baay bi kon nag mbokk yi fii lanu wara yem tey wante fas nanu yéene tasawaat ak yéen ci émission bi di ñëw ngir gis ni yàlla wàccee xel mu sell mi ngir mu dëkk ci xolu képp ku gëm Yeesu Kirist te nangu ko ni musalkatam ak boroomam su fekkee ne am na lu ngeen bëgg a laaj ci lu nu jàng tey na ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li malaaka ya waxoon taalibe ya bi ñu naan yéesu male ñu jële ci seen biir yéega ko asamaan dina dellusi ci ningeen ko gise muy dem asamaan